jaajëfal leen si ànd beeg teewlu bi si Public SN si suñu différentes plateformes ñu ñëw ak yéen si li xew fële ci RTR sa nekkoon nag assemblée générale bu ñu awaloon tey négi ki 15 heures euh, ba assemblée bi nga xamante ne dañoo daal di tere rek ay journalistes euh, daal di accéder si biir ngir daal di teewlu euh, wala sax taataan kaddu yi nga xamante ne moo fa waroon jëp ngir askan wi xam problème mu agent de la RTC yu ñu am ak ki nga xamante ne mooy bu bees bi di Pape Alenia ndax nag bu ñu seetloo Pape Alenia Niang daa daal defoon benn si lettre circulaire rek ne euh, lépp li nga xamante ne rek moom mooy salaire da koy daal di wàññi waaye it def ay mbir yi nga xamante ne rek neexul ñi nga xamante ne ñoo fay liggéeyee ndax jàpp nañ ne rek daf leen privé si li nga xamante ne moom lañ nekk dund alors que moom mu ngi nekk si confort euh, di euh, am salaire cinq millions et poussière moo tax nag bu si si li nga xamante ni moom mooy nekkoon assemblée générale boobu si RTS benn agent wala sax benn syndicaliste daal di gën def benn révélation rek mun nañ ne sax ñenn ñi siñ ko sañ wax wax nee nañ rek dafa rëcc ndax rek mu ngi xam xamle si li nga xamante ni moom mooy euh, ba muy jël kàddu ki nga xamante ne moom mooy journaliste bii di ngoone Saliou Ibrahima Lissa Faye Pa Assane Seck ak Aram Touré euh, dañ leen di daal di rek jël recruter leen si li nga xamante ne mooy RTS sax mu wax euh, li nga xamante ne moom moo leen fii tax a jóg maanaam lu nar a nekk seen liggéey si RTS mooy émission Kenkeliba bi nga xamante ne doon am matinal dañ ñoom lañ koy jox ñuy dégg ñu koy ñoom lañ koy jox ngir rek ñu daal di koy def en wolof mu mel ne ne rek moom nee na Euh, ñi ki nga xamante ne mooy euh, ki nga xamante ne mooy Pape Alé Niang ñi muy nekk di dàq wala sax ñi am di deux ans ñu war leen renouveler dafa leen i ñoom sax dañ leen di daal di euh, dañ leen a waroon a indi ñu ñëw mais lu tax ñu ne leen toog leen seen kër mooy partage goto bu ñu doon wax ngir rek mu yamale ñee indi ay nitam ay nitu boppam ngir rek ñu daal di mën a bénéficier wu si li nga xamante mooy xeexum projet bi ñoom ñoo ko doon xeex rupture transparence jub jubal jubbanti mu mel waxtaan si syndicaliste bi de ne rek jub-jubal jubantek transparent amul fenn lu ci am rek moy mooy lang partage gato ak toroxal doomu adama yi suma ma wàccewee sama cadeau di ngeen am vidéo bi nga xamantene moy mooy li may wax ma leni jajeufal li lan jox rendez-vous très prochainement jangene jeuf yeen gisagu leen ñu bes ni sax xam nga euh euh, euh bo gisee pap Assane sek day nekk wal fajiri di di di avaliser li pap ale di wax ñëw na fii presque son contrat boy xol fi la jëm ci bo gisee ngone saliw job bu mu len bet mi ngi toog ci sitam bu ngeen xare tour yi ngeen len gis fi ci kër télé bi bo xolé nday aram Touré ñom ñi ngi tok ci seen site di wax c'est des gens qui ont déjà négocié mais pënd bi lañuy xaar mu wuri pour ñom ñu ñew parce que ñom ñoo wara animer rubrique euh gu euh, ba en wolof bi nga xamni légui léegi ko wara def en wolof ñoom ñoo ko war ak Ibrahima Lissa Fay mom tamit xeeb na sitam boobu moom mi ngi ñew waaye nak lolu

Música